man Amadou laa tudd laborantin photographe la yor labo fu ñuy sotti photo yi quoi maanaam par rapport ak seen liggéey bi quoi avant ngénte ak mariage yi bu ñu leen teree affaire bi comme euh, coronavirus la ña si ñëpp si na jàpp comme dañ leen tere nag ñun ça dire que ñun seen liggéey taxaw na waaw su ma maay naan appel état bi daal bu mu ñuy fàtte quoi maanaam bu mu ñuy fàtte. te ñu ngi koy ñaanal tamit yéen bu mu yenu nii yal na ko yàlla gaaw a tegg fii waaw parce que ñu xam nañ ne métti na lool même fayu fayu courant bi sax ainsi liggéey bi yëpp du kii sax mais lépp domaine yëpp la laal domaine yëpp muy secteur photo bi yeeg photographie yeeg laborantin yëpp la laal ainsi moom dañuy toog benn place rek di xaar yàlla quoi ainsi comme nii rek waaw mais nag yàlla dogalam jàmm ak pexem rek noonu la mën a nekk quoi ok ñu ngi lancé état bi naal mu ñu mën a fàtte quoi te ñu ngi koy état bi daal ñu ngi koy jàppale si combat bi quoi combat bi ñu ngi ko siy jàppale. Euh, maa ngi ñaan bépp jeune yoo xamante ni ñu ne ni affaire bi ñëpp xam nañ ne metti nañ mais nañ d'accord décision état quoi ñëpp nañ toog si seen kër ñu xool d'ici deux semaines ou bien trois semaines ñu xool lu ñuy jox waaw comme ça ñu mën a génne si situation bi. waaw asalaamaaleykum sunu mbokk ñi ñi doon seetaan waaw coronavirus bi moom impact bi mu def si suñu liggéey ñun yëg nañ bu baax a baax ndaxte fu mu ne gis gistuñ benn client te ñun si labo yi dañuy yëngatu man baaba laa tudd labo baaba laa nekk man maa maa moom labo bi mais jamono yi li mu dund moom ah doy na waar trop bu yàggee moom xanaa bu moytu ñu wàccee suñu porte parce que suñu clients yi si xew yi nan doon dem xew yi amatul te danoon lépp kenn am kenn am fenn dara. fi mu nii fi mu nii ñëpp au chômage ñeen ñi sax ñibbi nañu dëkk ba dem toogee fa parce que bu ñu fi nekkee du am lu ñu dépensé te ñun suñu liggéey moom dooy na waar bay dunde la da ngay liggéey léegi-léegi dunde ko léegi-léegi mu jeex si sinon boo toogee fi amoo amoo amoo loo liggéey day métti quoi foog nga ñibbi ñoom ñëpp dem nañu maa fi nekk ak sama benn booy mais ça ne va xam naa ni moom bu moo turee moom bu yàggee dañuy wàcc porte yi dem toogi quoi parce que gis duñ dara métit bii moom ñoo ngi koy yëg bu baax a baax waaw xaalis boobu aussi ñun ci askan bi nan bokk parce que ñun petite entreprise nan yor quoi muy P PE xaw ma moom nan yor suñu jàppalul du dem parce que courant yaa ngi fii location yaa ngi fii emploi yaa ngi fii loolu yëpp même boo liggéeyal da nga ko di nga ko fay te ñoom it aussi war nañ xalaat ci loolu quoi sinon rek ça ne va pas du ñuy wàcc porte yi tëj waaw nañu xalaat bu baax a baax si seen si seen dimbal boobu nu yor war ko jox ñi ñi waa ñu ci naan bokk waaw waaw ànd naa ci ànd naa parce que yàggatul yàggul quoi c'est pour le bien-être de tout le monde loolu moom ànd na ci parce que feebar bi moom kenn xam na fu mu yem day dem rek waaw bu dee interdire nañu mbooloo parce que feebar bi aussi nit mën na ko am dem ci mbooloo wala ko keneen ak keneen mu dem mooy boobu mooy feebaru communautaire bi quoi bu baaxul boobu moom bu ñu ko mënee interdire c'est bien vrai comme que yàggatul rek quelque temps la nan nan ko muñ quoi yàggul nan ko muñ rek même bu dee fekk mois nan ko muñ mais nag bu ñu fàtte ci ndimbal bi ndimbal bi moo ñu jàppale pour ñu mën a dem waaw parce que fe bu ñu interdire xew yak yooyu c'est tout le c'est pour le bien de tout le monde loolu arrangement ñëpp la quoi pour feebar bi mun a taxaw mais bu dee bàyyi na nit ñi di di sumbaxloo ci kaw ci biir kii bi moom du baax quoi comme ça bon mais nanu nanu fàtte ci bu nu fàtte ci affaire bi quoi ci ndimbal bi ñun loolu loolu dong nanu laaj ñun photographie ñoo nga bëgg a def ñooñu toog defuñu dara waaw nanu jàppale ci loolu bu baax a baax donc waaw maa ngi nuyu askan bi yëpp waa affaire moom ñun la njëkk laal waaye ñi ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci wàllu photo ci ñun la njëkk a dal parce que boo tëjee ngénte takk yenn manifestation yi loolu day daal di lal photographe bi quoi waaw parce que ñuy dem ci hôtel yeeg séminaire yeeg ñooñu instant bi dañu arrêté parce que ñoom lañ njëkk a kon donc métti na lool instant bi dañu ñëw toog nii rek liggéey yi nga xamante ne ñoo des instant bi gis nga borom labo yi ci loolu lañu nekk nii di liggéey dañuy toog toute une journée dara du dugg pratiquement kon donc bon état ci li mu sukkandiku ne day jàppale ci nit ñi après ñoom bëgg nañ tamit ñu bàyyi ci xel quoi xam nga mais métti na gaa metti na daal metti na trop tey fii xam ne jàpp nañ ne aussi tam ci côté yëpp la métti mais na ñun tam ñi ngi yëgal ñi ngi yëgal suñ bopp ne que métti na ci ñun trop sax yàlla xam na ba ñuy xëy ñëw toog jàpp suñu jàmbur waaw waaw moom daal affaire bu ñu ci mën dimbale tamit waaw dañuy dolli sant rek waaw mais nag métti na trop location baa ñuy xaar facture baa ñuy xaar xam nga ak ndox bi et tout la dund bi kenn waxatu ko waaw métti na trop mais nag bon ñu ngi félicité président aussi xam nga ci ci yëf yi muy doxal rafet na trop bon ñu ko ci sant di ko ci gërëm mais nag nañ ñu ci bàyyi xel quoi ñu photographie waaw métti na lool lool lool sax waaw. facture courant yi xanaa ñu gën ñu ko yombalal rek wala état tamit mu xam mu jël ci. ndimbal rek loolu kese daal lañ ci ñaan quoi waaye métti na daal métti na métti na ba jéggi dayo daal mais nag ñu ngi ñaan tamit borom bi tabaaraka taala mu fanqal ñu balaa bi mu teel fi jóge waaw loolu rek lañ ci am luñ ci sànni ay kàddu quoi waaw mais métti na trop moom macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw maa ngi tudd Sohaibou Dramé laborantin eh, employé laborantin labo planète. à Grand Yoff voilà euh, comme samay mbokk yi lu ñu wax man tamit ci laa bokk quoi ci liggéey bi laa bokk te comme état lu mu wax tamit nañ topp ci loolu euh, comme lu ñu wax restez chez vous voilà raxas seeni loxo comme lu ñu wax rek euh, état bi lu ñu wax ñun ñu ngi ci daal wala ñu ngi ci te francement moom ñun tamit ñu ngi jàpp ci combat bi bu baax a baax voilà. pour ñun ay photographe lañu. Euh, affaire bi ñun ñun la jëkke laal parce que ñu rencontré moo ñu arrangé te ci ñun amuñu fenn fenn fu ñuy fu ñuy amee fu dul ci rencontré te fu na nii sonn nañu trop trop trop bu fekkee ëdd am na mun nañ ko jàppale euh, commencé ci photographe yi parce que fu mu toll nii ñun amuñu dara dara dara dara ñoo ngi nii toog su am nañ njaboot chaque jour ñu war a joxe dépense amuñu dara dañuy xëy dem toog ñibbisi si pour ñibbi sax sérieux problème la léegi moom bu fekkee am na fu ëdd nañ ci jàpp bu baax a baax a baax a baax photographe yi fu mu toll nii xaw nañu dee mooy loolu mooy dee nañu waaye man nag ànd naa ci li ñuy wax ñëpp na toog pour kii bi bañ a évoluer c'est normal waaye nag fekkee at ëdd am na ci ñaan nañ ci ëdd baax a baax a baax a baax a baax a gannaaw bu leen nuyoo ñu faydu waaw en fait bon li ñuy wax ni moo tey xam naa ci xew-xewu jamono mooy Covid 19 bi bon nekk na loo xamante ne moom fu mu toll nii moom ah monde entier ñëpp ko yëg rawatina ñun fii senegal fii ñun photographe yi ñu yëngu si si informel parce que ñun fu mu toll nii moom ah, wax dëgg yàlla noonu actuellement ñi fii ñu wax ak yéen. ñun suñu liggéey doxatul dox boo xamante ne war na mën a tax ñuy wax quoi parce que actuellement nii ñu wax ak yow nii toogaay bi ñu toog ni sax toogaayu ban jaaxle la laa ko mën a waxee mooy lan parce que actuellement nii ñu lépp ci lu ñu yaakaaroon ci comme liggéey mooy ngénte di mariage di même bu dee anniversaire yu ndaw ndaw sax fu mu nii dañ ko mënatul sax am ndax euh, feebar bi di ñaan yàlla nag mu fànkal ñu ko tamit di ñaan yàlla tamit xam nga di wax gouvernement bi tamit mu mu gëstuñu bu baax a baax mooy laa ñun si parce que ñun si fi ñuy yëngu la parce que tey jii boo xoolee ñu doon yëngu si maanaam ci ngénte mariage yi wala dem ci yenn cérémonie di photo ni dem di jaay ñu koy wax dërëj tey jii yooyu yëpp benn doxu ci parce que bu ñu xëyee tey ji boo ne ñibbi tey jii sa kër rek war nga am looy yóbbaal lu mu bon bon mais actuellement nii ñun suñu lépp suñu lépp a taggatémbe fu mu toll nii quoi. di wax tamit gouvernement bu dee tam mën nañuy gëstu ñun suñu wàllu bopp mooy bon d'accord sax ñun war nañ mën a def suñu participation mooy la di sensibiliser nit ci loolu gaa ñu ngi koy def quoi ak nu mu mën def parce que foo ñu fekk ñu toog tey ji may wax ak yow nii man bu may dox sax bañ naa ko ba sama antisel laay doxaale nii quoi moom laay doxaale parce que fu ma mënta dugg rek su ma duggee génn raxas naa sama loxo yi di sensibiliser ni ci tamit di leen wax ne képp ku génn ne donte bu dee da toog nii sa buntu kër duggaat sax booy dugg nanga nga raxas sa loxo yi boo yore antisel na nga jël saabu nga raxas sa loxo yi comme niñ ko waxee nee nañ saabu booy raxasu boo ko defee ni sa loxo war na mën a def benn 30 secondes 30 secondes yooyu su jàllee nga doog a lenkali sa loxo parce que 30 secondes mi ñuy def sa loxo moom mooy rey micro bi quoi di jéem a mooy tamit bu baax man loolu laa am ci li may wax ci Covid 19 bi. Euh, je m'appelle Mohamedou Baldé. Je suis reporter photographe euh, euh au labo Planète Photo de Grand Yoff à Harialla. Bon, ces derniers temps, nous avons euh, constaté à maladie Covid-19 qui a tout chamboulé dans ce pays, surtout chez nous les photographes. Euh, ces derniers temps, c'est très dur parce que euh, on ne peut pas faire notre travail comme il faut. Euh, L'État a interdit les cérémonies et ça nous a tellement pénalisés. Mais on va dire, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout ce que Dieu a décidé, c'est bien pour nous. Donc, on vit des temps très difficiles en ce la mais on se débrouille pas mal euh, parce que vraiment, tout, tout est à l'arrêt. Euh, nous sommes là, on vient, on reste ici toute la journée. Après, on rentre avant vingt h pour le couvre-feu. Mais, Alhamdulillah, ça va passer. Tout ce qu'on, les conseils qu'on donne au peuple et surtout à nos collègues photographes, c'est de respecter les normes que l'État a dit de faire, c'est-à-dire de, de <clears throat> de se laver les mais de respecter les, les, les, les formes d'hygiène, de fair tout, de respecter leur di couvre-feu, de rentrer avant 20 heures. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, nous sommes des photographes. Bon, corona bi moom fu mu ñëw yaakaar naa ne photographe yi ñun lañ njëkk a laal puisque ñun ci cérémonie yi la ñuy amee dara mariage ou ngénte ou séminaire mooy par exemple daal mooy rassemblement bi ñuy tere boo mënul ñàkk nag comme rassemblement moom mooy tax affaire bi gars di propager wu bon il faut boo ñu doxalee ni ngeen wax mais nag vraiment métti na si ñun métti na si ñun trop trop trop trop trop trop puisque mesures yi jël yëpp yëpp booy xool mën naa ne ñun la njëkka laal waaw puisque bu ñu demee ba tere rassemblement te si ñun si loolu lañ yaakaar di amee xaalis ngénte léegi mënatuñoo am ngénte kenn wowatuñu programme muy ngénte di mariage di jàng di lépp daal li nga xam ne si ñun si leen mënoon di génnee xaalis waaw même bon séminaire yi nga xam ne aussi fa lañ doon dem séminaire amatul waaw boîte yi yi ñu doon dem di liggéey pour mu am luñ suturoo ak njaboot yu yëpp dañ ko fermer waaw te nag dañ yor ay njaboot bon yor aussi doon ay soutien de famille suñ parents yi suñu leen yaakaar waaw ku war a xëy di dépense toog ay weer liggéeyuloo dafa loo dara mais li dencoon yëpp actuellement lekk nañ ko ba mu jeex waaw bon bu fekkente ne nag boo am na lu ñuy edd yaakaar naa ne ñun leen njëkk a war a xalaat parce que ñun suñu liggéey dafa taxaw dafa ñun leen njëkk a suñu liggéey ñun leen njëkk moo njëkk taxaw si ñëpp ñëpp ñëpp mën naa ne si sama gis-gis bon li ñuy ñaan nag bon mooy ñu jàppale ñu bon état affaire sociale bi muy wax yaakaar naa ne demoon ba di ko joxe ñun leen waroon njëkk a xalaat waaw puisque ñun si ñuy amee porte yi yëpp lañ fermé actuellement bon waxuma ñun photographe sax mais laborantin yi fi nga xam ne bon ñun fa la ñuy reproduire suñuy photo aussi ñoom it ñoo gën a yëg mbir mi waaw puisque facture courant bu ñëwee puisque mois bi déjà ñu ngi waroon fay facture courant à partir de la cinq ay facture courant ay trois cent mille francs yor employé war koo fay ah, pour yow li nga jëndee añ da ngay am problème waxuma laa sa sa kër aussi da ngay joxe dépense sa kër ñëw joxe fii dépense vraiment sonn nan yëg nañ ko trop trop trop trop trop waaw fu mu nii daal lu ñu mën a jàppale état lu ñu mën a jàppale bu yeboo bu gaaw waaw si doon nan toog suñu njaboot di fande te loolu ñu ko yàlla waaw amuñu pexe nag mënuñu def leneen waaw foto lan yaakaar lu nu am si leen ko amee waaw vraiment daal bon maa ngi souhaité état bi bon bu fekkente ne day distribuer ñu xool ñun ni ñuy def bu fekkente ni par voie association lay jaar ñu xam lu ñuy def waaw bon puisque bon am na si certains yi nga xam ne ñi am seen i association yor seen i aussi bon bu fekkee am na beneen voie bu mën a jaar ba mën a jot ndimbal après bu demee ba liggéey bi démarré waat moo ñu mën nañ xool nu ko fayee waaw parce que actuellement du ma leen nëpp dañuy xëy toog suba ba ngoon un franc duñ ko encaissé. waaw yor ay njaboot war leen a juddal chaque jour dépense moom du xaar chaque jour da ngay joxe dépense sinon sa njaboot du lekk waaw te porte yi ñu doon amee xaalis yëpp moo fermé actuellement parce que ak corona bi moom problème mu événement gis ngeen lépp leen interdit waaw porte yi ñu amee xaalis nag bu nee ba tëj ko nag amatuñu fu mu toll nii li ñu dencoon yëpp dañ ko lekk ba mu jeex waaw man daal maa ngi lancé un appel waaw état bi ndimbal buy am nañ ñu njëkk a xalaat waaw njëkk a Parce que vraiment, on est très très fatigué.